meloon na noo xam ni eh, eh, eh, man day wóor na ma nii bu ñu amuloon ku mel ni sëñ Xaadim mm-hmm. non kon kon kon kon du du sotti mukk ci àddina fi ngay xame ne li ma doon expliquer sànq rek. boo ci nekkee. mu teg loxo ba. ci sa kaw yërmande jë daara jooju. bokkoon na ci daara yi sëñ bi gënoon a fonk. bokk na ndax li ëpp ci nekk na biir bitim réew. ci daara dafa daara jooju la ko daan def xeeti jëmm yu doy waar ne fa yu tumuranke ci bëgg ko. ci sellal seen ànd ak moom. waaye bi mu defee ni mu def. day mel ni voyage bi ma jëkk a def Bordeaux laa ko defee fa la ma sëriñ bi nag jommale parce que damaa ñëw maa ngi naan ah man de maa ngi dem c'est pour peut-être recoller les morceaux waaye ma daara jooju bu tasee xaw ma fu moom boobu bu daara moom du naqaree li jënti ndax gaa ñi meloon nañu ci sëriñ bi melokaan boo xam ne jàppoon naa ni duñu mën a résister ak li xew waaye ndekete de de formation yu wér bu wér bu sëriñ bi laa fay fekk gaa yi jóg taxaw ci njiitul Xaadim Fall ak moom mii ak ñoom Mamour Seck Kébé Babacar kebe Alioune Ba Alioune Kébé ñoom Diallo ñooñu nga xam ni ñoo nekkoon tenoor yi daara ji ma ñëw ñoo ma jël si keroog aéroport keroog laa xam ne sëriñ bi nar na mbir mu des ma war faa def jëriñ léeg-léeg ma tëj ma nekk mbokk taalibe waxtaan ak moom tudd daara ji ni quoi man daal faaw xam naa daal maa ngi xalaat waaye man de damaa defee ni jëwriñ moom mënu ma koo ñàkk am fii ci daara ci waaye unanimement ku ma ci waxal de Khadim Ngom en pensant en passant par euh, euh, ba Babacar Kébé amul ci ñoom ku ci ciy wax te dooma ni seetal jëlal sëñ Khadim nga jox ko daara ci Babacar Kébé daf ma ni man maay magu daara ji bokk naa ci ñi mag ci daara ji waaye man de wóor na ma ni Xaadim Fall man na koo doxale noo xam ni man ci sam bopp duma ko mën a noonu te bu boobaa maay jëkk a topp ci ginnaawam pour jàppale ko ci liggéey bi ah! donc mu mel ni taalib gars yi ñëpp moom ñoom moom la ñu désigné te mu koy mu koy assurer d'une manière inespérée jàppoon naa ni euh, daara ji wax dëgg yàlla bu sëriñ bi amee nu mu def rek yëf yi dina ci am ay jeexital au contraire tey jii la daara ji gën a taxaw tey jii la daara ji gën a am Pastef tey jii la ñu gën a wéetal sëriñ bi ñoom El Bamba j'ai oublié de le citer jëmm yu mel noonu ñoom Matar Thiam ah moom kay boo limee jum parce que da finalement daara ji yëpp la waaw waaw ñëpp àndandoo foofa jëwriñ ji rek a fa jóge waaw te te te te te te ki ko ki ko ki ko wutoo ko man fuuf du moroom waaw waaw te sëriñ bee ko bëggee woon noonu te kooka euh, xam man day wóor na ma ni sëriñ bi du jum lu mu def rek noonu la moo tax bëgg naa lool ci mu jiite daara jooju ak pëstéef bi mu ko jiite xel mu rafet mi yarab bi teggi nii humilité bi sëriñ bi boo mën a tànn ñëpp barke sëriñ Touba day xam-xam bi ci bi ci sëriñ Xaadim waaw jeune mais mais mais mais mais talibé murid sadix waaw man ah yitte ji man ba ba nee naa leen mooy li ma faral di wax tout temps sëriñ bi dafa segg mbooloo mi daa seet ñi ci gën mu boole maag ñoom barke sëriñ Touba c'est la crème man li mu amoon ci lu baax ñoo fi nekk ñoo ma wër bu ma gestoo gis leen da ngay gis ni mais fii ñi nga xam ne ñoo ñoo gëm sëriñ bi rek a fi ne voilà donc euh, moom daal dëgg naa lool ngi santaan bu baax tey ah moom borom këram dafa baax. Ah. ndeysaan moo nekkoon hôpital principal. voilà oyof. waaw buñ la nee moom mooy. Béthio jërëjëfati bi ñu ngi lay siyaare. waa di santaat bu baax ci kàddu gi ñu jot naa sànni si kàddu yu gàtt rek ndax waxtu cant gi jot na euh, waa Bordeaux moom man mun naa ne ci daara ji laa bokk sax. waaw ndax eh, <laughs> ndax Mamour ma ci boole mën naa ni waaw Mamour Seck moom ku tudd Bordeaux tuddaale ko <laughs> te ñëwoon naa fa en 2015 tamit def fa séjour bu neex ñu yaatal ma lool sax defal ma teraanga yu bari ñoom waa Bordeaux yi waaw eh, damay rebondir ci sa kàddu rek bi nga naan yëf yi yëf yi doonuma ci dara mën naa ni dans le processus doonoo ci dara waaye fi mu ne dara nga ci waaw ndax fi mu ne mbir mi connection la rek fi mu ne tu es tu es un niveau boo xamante ni dara nga ci par force waaw ndax mbiru yàlla continuité la benn message rek moo fi mës am ñi fi mës a jaar yëpp laa ilaha illallah lañ doon véhiculer bi yonent bi ñëwee teg ci muhammadu rasulullah c'est cette continuité rek moo fi nekk laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yàlla bindul nit ak jinne lu dul ngeen ñu jaamu ko te pour nga jàmm ko foog nga xam ko ku ñëw nag ci message boobu ci ngay xamale nit ñi seen borom ngir ñu mën a delluwaat ci moom ndax bu buñ ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mooy ci yàlla lañ jóge te ci yàlla lañ war a dellu waaye delluwaat bi nag ba procesus bi le summum du processus maanaam ca kaw fa mu yem mooy am ngërëmal yàlla yegg ci yàlla mu mel ni boo yeggul foofu euh, jeexaloo processus bi boo demee àjjana c'est une récompense pour tes efforts ak yërmande gi la yàlla jox waaye objectif bi bi nga ñëwee fii mooy delluwaat ci moom am ngërëmam ndax delluwaat ci moom ngir nga yeggaat ci moom mooy da ngay am ngërëmal yàlla mooy yegg ci yàlla donc le message ni ma ko mën a euh, ni ma ko mën a illustrer suñu borom ba mu doonee lu kenn xamul c'était mën naa ni dafa meloon ni obscurité rek lu lëndëm lu kenn gisul mu misaalee ko mu mel ni ci biir suuf boo nekkee ci biir suufaa nga doo gis dara bi mu tàmbalee feeñal tàmbalee yónni yonent yi mu njëkk a yónni dafa mel ni ay racines lañ doonoon les racines d'une future plante d'un futur arbre ku nekk ñu jox la un message yebal la ci un peuple peuple boo dem jàngale fa laa ilaha illallah annoncé ni Muhammadu Rasulullah mooy ñëw après bi prophète yëpp jeexee racines yooyu yëpp bi ñu matee Muhammadu Rasulullah ba mu ñëwee moo ko dajale synthétiser ko doon tronc bi arbre bi daal di fël mu indi un l'islam ak caractère synthétique et complet bi garab gi jébbee màgg ba doon garab gu mag lislaam mat ci la nag yoon yi tàmbalee feeñ waaye toujours racines yi ak tronc bi tàqalekuwuñu yoon yi ñooy branches yi yoon yi jëm fa suñ borom tarixa yi voie spirituelle yi voie initiatique yi yii jaar par le mode de la prophétie yii jaar ci yeneen feeñuwaay yu yàlla di xamale boppam yëpp jëm ci suñ borom bi sëñ tubaa ñëwee nag indi mouridisme mooy voie bi nga xamante moo gën a complète gën a gaaw ndax dafa taxañ lépp def ko muy yoon wu jub te gaaw jëm fa suñ borom moo tax sëñ tubaa ci lislaam la soqe ko wéy di la station la plus élevée ci lislaam ba pare nag yegg ba sar ci suñ borom Serigne Saliou bi mu ñëwee di sëñ tubaa dans son intégralité moom ndax sëñ tubaa bi mu ñëwee matale li ma la li ma la doon wax connexion boobu Serigne Touba bi mu connecté ci loolu ci la wax ni ma ni maa kaana xablal xalqi man kaana li bi karamin wa tilqi maanaam yàlla mooy l'éternité sans commencement di l'éternité sans fin yàlla amul démb ak bërki démb ak tey ak suba lépp dafa dajaloo ci kanamam Serigne tubaa ba mu toogee ci station boobu ci la yàlla xamal na ma la amoon laata muy sàkk maanaam démb ak tey ëllëg dafa dajaloo ci kanamam lépp day mel ni dafa fekke ndoole amoon ak li am ak li amagul moo tax mu yëkkati kàddu googu sëriñ Saliou bi mu ñëwee ci gàttal di sëriñ Touba te sëriñ tubaa ci boppam feeñaloon ay branche yoo xamante ni ci biir yoonu murit branche boobu di yoonu murit dafa am ay ramo ramo yooyu mooy kër yi ngay gis ci biir kër Serigne Touba waa kër maam Cheikh Ibra waa kër maam Thierno Birahim waa kër Cheikh Issa Dieng et cetera waaye ñooñu ñëpp toujours ils sont connectés à cette branche là toujours connectée au tronc et aux sëñ Béthio bi mu ñëwee Serigne Saliou samp ko dafa ibbiwaat beneen ràmm bu yees mooy cant gi moo tax mu ni sëñ bëcc ak waa këram damaa ibbi bunt sëñ Béthio ak waa këram damaa ibbi bunt ñu dugg ma tëj ko ku dul ñoom dootoo fa jaar ñun lañ teg ci gaaluk cant gi mooy ràmm boobu di bi mujj te yees te am doole te ñu jagleel ñu ko moo tax ci lislaam lañu bokk ci yoonu murit lañu bokk waaye on a nos dañoo am suñu branche bopp boo xamante ni connecté na waaye am na ay mbir boppam nag mooy may yi sëñ Béthio am mooy sañ-sañ bi mu am bokkul ak les lois lois yi yoon la ñëpp ci lañ war a jàll ñëpp ci tënku waaye nag dafa am ay jagle am ay sañ-sañ am ay privilège yoo xamante ni c'est purement euh, spécifique et particulier au cant moo tax mu ngi noonu suñu waa ji daal mbiru boppam boo xamante ni ci la ñu sóob ci la ñu jàngal ci la ñu nàmpal ba ñu mel nii ñu mel yow nag continuité boobu ci nga ne maanaam yoon woow di yoonu sëñ Béthio ci nga ñëw xëy na xëy na yaa ngi woon ci leneen yaa ngi woon ci cant gi waaye nag teg nañ la ci sees bi foofu yaa fa toog poste boobu yaa koy occupé waaw ban la ci sampe nag ca nga connecté ak branche yoonu murit connecté tron bi di l'islam connecté waaw mu ngi noonu connecté religion yi mu sa jàll yëpp ndax benn message bi la moo tax sëñ Muntaxa bëgg la ni mu la bëggee moo tax yoonu murit bëgg la moo tax chrétiens yi bëgg la moo tax lislaam bi ñëpp bëgg la mu ngi noonu moo tax ñëpp bëgg la parce que tu es connecté à cette lumière divine là nga xamante ni mooy message authentique bi rek mooy la tradition primordiale mooy mbirum yàlla mooy laa ilaha illallah ci nga connecté ci nga ñu sóob moo tax ngay def loo xamante ni yow parfois ça peut te paraître anodin fekk ce son des actes sanctifiés ndax dañ la ko inspiré du yow yaay def du yow yaay wax dañ lay def loo dañ lay wax loo loo def mu dëppoog li sëñ bi bëgg ku ci nekk ci ñun vivre na des situation yoo xamante ni toog nga de façon anodine ci yow wax ko loo xamante ni sëñ Béthio ko waxoon ñun ñii ñëpp ku ci nekk am na ci ay anecdote loo xam ne sëñ Béthio da ko defoon wala mu wax ko ko mu ñëw nga def exactement la même chose man exemple bu terre bi ma ciy joxe rek mooy sama soxna sëñ bi soxna su tedd si la ko doon wooyee ba njëkkee ñëw CRS da nga ko doon ah soxna si mun la sëñ bi noonu la ma doon wooyee <laughs> waaw ku ci ne maanaam loolu ay ay confirmation la te yoonu murit sëñ Touba day lu wóor. day lu dëggu sëñ tubaa du juum sëñ tubaa mbirum yàlla la yor fowul fooluwul te ku mu fi teg dalay connecté ci loolu sëñ taxaa nii mu la jàppee du par affinité wala juste par plaisir c'est parce que da nga nekk dans une position stratégique connecté à cette réalité là di yóbboo fa suñ borom waaw moo tax faw da am ndam lii nga ne waaw ci ndigalu suñu borom nga ne waaw ci li sëñ Béthio ne ci nga ne moo tax ci ndam rek ngay sax ci sutura sëriñ bi ci teraanga ci jàmm ci mbég waaw yàlla na sax waaw yàlla na nga fi yàgg ci <laughs>